La ilaha illallah ndax kat dekk bu du tuxu dàggu ju rëy mutu fa naw te bo sété bamba ji kër go xamni ni borom kër ga demon na gànnaar ñett fa des kon nun ñi fi desal ñoñi li war di sun li jëm ci kër gi rek bu wéyee nag luñ ca mën a teg ñu teg ko ca nee na loolu daal moo di waxam li ci tegu mooy kii fi nekkal sëñ Ablaay di sëriñ Badar nga xam ne mooy jëmmi sëñ Ablaay nga xam ne ku mënta mucc sëñ Ablaay di nga ko déglu lu mu digle rek nañ ca ne yàlla na ko fi yàlla bàyyi te bàyyi na fi nun ñëpp ci barkeb sëñ Touba te kat am na lu ma déggoon ci mag nee dëgg na ci sëñ Mortala Fall moom Cheikh Ibra mu ni ñàkk a fonk sa kilifa day ñàkk a fonk sa kilifa day du tee doon kilifa waaye boo ca yeggee koo ni bankal mu ne la banko woon ba may bankaloo auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñi fi taw ñëpp ak ñi dégg suñu kàddu fuñ mën a nekk di leen ziar bu baax a baax ci waxtu wu am solo wi ñu nekk ak weer wi nga xam ne moom lañu dugg te tey jii di bis bi ci jëkk muy weeru rajab di weer wu màgg di weer wu bari ngëneel ñuy ñaan suñ borom ngëneel yi nekk ci weer wi yépp yàlla nañ ci yàlla defal taas ñu ci barkeb weer wi mottali ñu ci naal yu am solo yi nga xam ni tàmbali nañ ko ci di ñaanal suñu kilifa yi sëriñ Badar ak sëriñ Baara suñu boroom gën leen a dolli yàggal ci suñu kanam ba liggéey yi nga xam ni tàmbali nañ ko ànd ko ak ñoom yépp egg ci seenu teewaay ñépp ñu fekke ko di sant mbokk yépp njaboot Cheikh Abdoulaye Diané gi yépp di leen gërëm bu baax a baax waaye di rafetlu it jéego yu am solo yi nga xam ni ñoo ngi koy taxawe lépp dara tax koo jóg lu mooy seen kër maam gi nga xam ni sunu boroom dafa dogal ndono li nekk ci seeni loxo ñu fas yéene koo yéwénal ba lépp loo xam ni kër gi yayoo na ko ñu taxaw ngir jema lola jëmmal loola suñu dajé bi nak liko sabab bok ci yenn ci naal yoy nga xamni dañ ko fas def ngir jëmmal kër gi muy kër Serigne Abdoulaye Diané ak daara ji nga xamni ñu ngi doon té xeer wi tay loolu nak buñ né jëmmal kër gi waxin la waya suñu bop lañuy jëmmal suñu bop lañuy sagal ndax dañuy baaxoo di dégg ci jotaay yu mel nii ñu koy taxawal di ca xeeñtu jéegoy seeni maam dañuy faral di wax ni dañuy sagal seen maam waaye buñ xoolee ba ca biir sagal sa bopp la ndax moom mi ngi ciy tudd ba liggéey jotee liggéeyoon na ba am ca lam ca am ba loolu lépp waral lii kon moom raw na yow bi ñëw gannaawam nag ni dangay jéem a taxawal mbir moo xam ni dañ ko caay tudd nanga jàpp ni loo ca def lu nekk rek sagal sa bopp la ndax soo ko deful say nawle ñu ngi koy def ci yeneeni kër te ñañ koy defal ëppuñu ko ab cër moom kon nag bu ab cëram mënee law ba ëllëg ñu koy dégg fu nekk ñam wàcc gannaaw seenu farlu rek la mën a nekk buñ farlu wutit nañu xam ni moom jëf na la mu jëfoon la des la nga xam ni moo ca des ca ñoom lay dese kon jéego yu mel nii nañ ci farlu bu baax te xam ne luñ ci def lu nekk rek suñu bopp lañ ko defal ñuy sant yàlla bu baax a baax nag ndax kiñ koy defaral muy Cheikh Abdoulaye Diané siiw na lool te lu wér la mu daa joxañ lii ndax yàgg na di ko joxañ bu ñu waxee mu ni sama kër nga ca kanam te ñun ñëpp biñ demee ba barab bi tegu ci loxoy njaane kenn ku nekk xam na ni waxam jooju mu doon wax lii moo jëmmal kon nag luñ fi def lu nekk tey waru gar la ci ñun it la cay jóge ci ab sag ñun la ñeel kon loolu ñu ngi ciy soññee bu baax a baax ñu gën cee taxaw bu baax liggéey yi mi ngi tàmbalee woon ci jumaa ji nga xam ni moo nekk suñu wet japp jëm ci kër gi ak daara ji yépp mu nekk ay naal yoo xam ni li ko tax a jóg rek weesuwut dundal islam dundal ak taalube ndax sëñ Abdoulaye Diané mi nga xam ni moom lañ ci tudd bi nga xamee ni yàlla dogal na muy bëgg wan gannaaw njaboot gi xamaloon na leen ni leen su ma fi jógee duma leen bàyyi lenn lu ngeen di xëccoo diine la leen fi bàyyil alquran akuk taalibe kon kooku lu waay di taxawee ngir jëmmam buñ ko xoolee ca njëlbeen ba ca mujj ga diine képp lañ ci war a gis te yi ñu fi taxawal di ko ci tudd buñ ko xoolee benn génn ci diine ndax juma wàccu waayam ci diine xam nañu ko daare alquran mooy la jiitu waaye ab daluwaay boo xam ni ku wàcc ci bërëb danga nga fa mën a dugg suturlu loolaat xam nañ ni moog doomu aadama ànd te it diine bàyyi na ko xel bu baax kon dara génn ci diine moo tax kon ñu ci soññ ñëpp kenn ku nekk taxawaay boo ci taxawoon lu jiitu tey nga gën koo yokk koo ci mën a soññ it nga soññ ko te it kenn bañ cee def lenn lu muy yéem walla mu def ci lenn lu muy xeeb la ca am solo rek mooy ku ne boo cay dugg nga dugg ci yéene ju sell ko defé la yalla fayé ci jëf ju sel nga man ci jot ndax ñun wër nañ ni suñu taxawarul loon lii tey ñun moom bu fekkee ak ak bëgg-bëggam la lu mu namm la boo léegi ñeneen daan ko taxawal kon buñ amee suturas nag yàlla dogal ñu man koo taxawee ñun ñi ñi tudd di ko tudd nañ sant yàlla bu baax te xam ni bokk giñ bokk ci moom de moom xeeñtu nañu te it nangu naa bokk bokk giñ bokk ci moom nangu na ko kon lol nañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax la ca topp mooy sant bu baax gërëm suñu kilifa yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo ànd liggéey bi koo ci waxtaanal ngeen wéet da nga yëg bu baax a baax bi ñor gum ko ñor ak yitte jum ci am ak ay jéego yum ci dox ngir mu taxaw kon ñëpp buñ maasee ci loolu dañuy sant bu baax te xam ni kon liggéey bi mënees na cee am yaakaar kon yalla na yalla deugal yakar yoyu Ta liñ ko liñ ci sentu mu gawa egg lol te ñu am ko nu kawe suñu ndortu ñu nalat yeneeni nal te ñun ñepp ñu fekke di sante bu baax di gërëm tay xamni ni yalla mom lepp lo xamni ni bëgg-bëggam la wala ñu ko cay tudd ta mu dajante lo xamni nit ku baax dina ko bëgg nañ xamni ni ba rek moo ca des waaye soo tàmbalee dina egg ndax buñ gisee màkkatal mukarram nii mu mel te ñu xam jàng taarix gis ni ba fa ibrahima di yóbbu hajara booba ab dett mber la woon dara negu fa waaye ñaan yooyu mu ñaanoon nga koy jàng ci bil alquran di ko gis da ngay teg sa bët ni yàlla nangu na ñaanam googee te nag ñu jàpp ni boromul ngërëmul yàlla lu nekk rek day fàggu te fàgguteefam faw dañu ko jot seen waajaane kenn ko xam ne fàggu woon na kon fàgguteefam moom faw ñu teg ci bët kon nag ñuy sant yàlla bu baax bi ñu yàlla boolee ci ñi nar a dëggal fam loolu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu gën fee dolli yàggal kilifa yi gën leen a sàmm ñun ñi nekk seen ginnaaw du njaboot gi te fu seen tànk jotewul ñu leen fay demal yàlla sàmm ñun it defal ñu xel mu ñor waaye defal ñu wërsëg wu ñu mën a taxawoo liggéey yi yëpp di sant ñëpp di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa kon nag ñoo ngi leen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu àggaleel nu suñu yéene eh, liggéey bii nga xam ne nag moom lañ doon door tey muy kër sëñ Ablaye Diané bi bokki taalibe yi nga xam ne njabootu sëñ Ablaye Diané lañ ñoom ñoo am pas-pasu jaayante ci kër gi luñ man bi ñu amee pas-pas boobu nag bi ñu ma ko yeggee nun ànd ak ñoom dem ci sëñ Badara ñu wax ne dañoo am tàmbalee ci kër sëñ jaane ba ci kër sëñ Baara Diané képp ku fi bopp kër nga warlu lu ci ñett tonni ciment bu ngeen gisee nag yenn di taalibe yi loolu yi ndigal wuñ ko ci ñoom mooy lii sëñ Baara Jaane wax léegi dafa wax ne addi yi la jiital addi yooyu nag yi lañ ko lañ ko taalibe yëpp itam kenn ku nekk ka nga jox sa bopp moom nga jaarale sa diggante ak sëñ Ablaye Diané waaye nun ñi itam nag kenn ku ne war ngay buum ga jokkale ak sëñ Ablaye bu googee buum saa ne nga di ko fetli ci di ko jéem a raw ba mu dër këng loolu moo waral lenn ci bokki taalibe yi nga xam ne ay sëti sëñ Ablaye Diané ñoom kenn ku ne ñoo jaayante ne kenn ku ne na joxe. njëgu ñett tonni ciment ñu tàmbalee ko liggéey bi buñ ko tàmbalee nag ba noppi nag ñu ngi tàllal loxo bépp taalibe bu yaakaar sëñ Abdoulaye jaane walla mu am yiwum yaakaar ci kër sëñ Abdoulaye Diané gi ak nu mu mën a jotee ak sëñ Abdoulaye Diané moo xam taalibe la wala mbokk la wala xarit la wala xemmeemu diine moo ko bëgg a booleeg sëñ Abdoulaye jaane loolu ñu ngi ci nyep, loxo ñep xam ne insha Allah taala dañu am pas pasu taxawal juma ji taxawal fi daaray alquran taxawal fi ke seigne sëñ jane ne insha Allah taala tàmbali nañ ko tay fas na yene so su ne nongu ci ñi ci soñu ñep di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu dimbali nu nu fi kilifa yi ta bayyi fi nun ñi ñep ak donga yep ci barke sëñ Touba kon nag Cheikh Bassirou ah, ginnaaw sëñ Badara moom yaweeku na sëñ Baara itam yaweeku na ñi fi nekk ñun ñu fi neew ya ñun ñu fi teew yaay sunu kilifa kon nag donga yaa ngi lay dékk loxo di ñaan nga ñaanal nu nun donga yëpp kenn ku nekk eh, kenn ku nekk yéeneem ci Euh, kër gi mën ko àggale nam ko bëggee gannaaw bu loolu jàlla itam sëñ Modou Diagne sëñ Fallou Diagne nag ah na koy gën a sant baax a baax a baax a baax ñëpp ñu ngi leen sant waaye itam moom itam gën na cee taxaw lool ci pas-pasu li ñu doon doxe ndax da ko ful ay yooni yooni yoon waaw kon nag loolu ab soññee la wone it ne sëñ Abdoulaye Diagne ñor na ko teyit ñun ñëpp kum ci doon yaa ngay jéem defar sa kër te itam pas-pas bi nga xam ne moo tax dong wax lii gan goo mën am bu fiñ jëm see nga won ko sa kër te mënoo ko won kër sa jaane loolu kersa la ci nun moo nu am pas-pasu jéem ko fee naalal loo xam ne bëgg-bëggam lay doon loola mooy incha allahu taala ñu tabax fi daara ju wér yoo xam ne képp koo xam ne nii bëgg ngaa xamlu da nga fi mën xamlu te ku fi dikk te am pas-pasu xamlu bo fi joge li nga wara xam sa dina lepp dang ko xam nyip. sakku ciy sàkku ak ñaanu ak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu ciy dolli dara waye mbir mi ne day mbir mo xamni mbir mu am jariñ la to tamu mu bari ngir Cheikh abdullahi jane dafa liggeel yalla ak yonente bi ak Serigne Touba. ba am ngërëmam di nitug yàlla di fees dell ci yàlla jeex takk ci yàlla kon buñ demee ba sun borom jox nu cër boo xam ne dañ koo teg fii muy njaane ñu tudde ko Touba njaane ñu am fi mu pénc mu yaatu taxal fi jàkka ak daara loolu cant la nee na kon nun sët yi nga xam ne noo bokk sëñ Ablaye Diané ñoom ñi am xalaat ba taxawal fi jàkk ji wax ne daara ji dañ ko fi def te boobaa léegi seen ñaq mu ci jóg benn yoon guddi ak bëccëg jamono ju ne ak saa ne ñu ngi ci taxaw ne kon nun amuñu dara luñ ciy waxati lu ñaanal leen te yéene ko ñëpp. suñ borom yàggal leen fi wéral leen jox leen kàttan goo xam ne lépp luñ bëgg a def sumb ko yal na ko suñ borom yàggale ci barkeb Cheikh Abdoulaye Diané di sant suñ kilifa gii fi ne tàmbalee ko ñe ko fi jëkkoon nga xam ni seen lépp dañ ko tegoon ci yoonu siraatul mustaqim ba yegg si fii tey sëñ Badar Diané nekk fi ñuy ñaan señ Badar mi suñ borom guddalaw fanam yagal ko fi wéral ko nitu yalla pire la ko xamni leppam léppam la tayit ko mandu la duggu ci lenn lo xamni alla dina ci am les koy mëna wax kon nun lolu xam nañ ko nit ñëpp nañ ko ñaanal kenn ku ne na wax ni señ Badar Diané yal na fi yag seigne Badar yal na fi yag ak ak mbolam ay rakam ay rakam ak seigne barami mi jowri ñam ak mbolam momi yëpp kon dal ñu ngi ñaan ci kàttanu sun borom momi mom asaman mom suuf te te lepp lu mu dogal moy am yal na wéral njabot gep bayi len fi bala sumb yéene ko ñu man ko ni ñu ko bëggee ci barkeb alxuraan jërëjeen jëf sant na ñëpp fu ay na tàllal laa ilaaha illallaah